asalaamaaleykum seen internet Dakar di gannaaw bu leen nuyoo di leen siyaaraat bu baax a baax baax di am mbégte di jàkkaarloo ak yéen saa su ne suñu plateforme yëpp tey nag eh, fi ñuy tijjee di ne di jaale ki nga xam ne mooy aslu axlu ah, Sénégal di jaale ki nga xam ne mooy Wally Ballago yaayam bi nga xam ne moo génn àdduna di maman Kiné Diouf Diaga nekkoon si jaboro ki nga xam ne mooy eh, Thione Ballago Seck di ko ñaanal fi mu jëm yàlla na ko gënal fi mu jóge ak mboolem jullit bi mu fa fekk ak ñi ko war a waaj dem fekk ki ma toogal nag kenn du ko présenté waat ci même dama koy bàyyi rek mu présenté wu ñu dugg si question Cheikh nuyu naa la. waaw ñu ngi ziar bu baax sa waay ñu ngi ziar bu baax. Mm-hmm. ziar di masawu Wally mm-hmm. génne àdduna yàggul ak papaam ay rakkaam magam loolu loolu loolu lu metti la daal lu metti la te suñu borom moom mooy bind moom. Mm-hmm. moom mooy bind te kenn mënu xëccoo moom. Mm-hmm. yàlla mooy xool li ko rek mu wax ka si jaamam kon da ngay loolu moom yàlla moo ko dogal mm-hmm. laay ñu ngi koy ñaanal nag di ko masaw métti na trop métti na trop te wàll ndaw la mm-hmm. ndaw la métti na trop amoon ah, moom li ma koy gën a li ma koy conseil mooy na gën a liggéey rek yokku liggéey yokku liggéey góorgóorlu essange moom wàlli sag loolu laa gën a liggéey góorgóorlu te gars yi ñëpp essange moom ku wàlli ku mën a dalal xelam na nga dalal xelam waaw lii am moom suñu borom moo ko dogal tey soo ñëwee tey ay polémique yi nga xam ne moom moom moo dal li nga xam ne mooy suñu dootoon. ah mais ah, nag suñu borom suñu borom mooy mooy mooy xool li ko neex mu bind ko si jaami am na ñoo xam ne juddu nañ gisuñu papa gisuñu yaay am na ñoo xam ne ay jirim lañ comme tey boo juddoo ba gis sa papa gis sa yaay tey bu fekkee sa alal sax am na lu ñu si lekk rek loolu sant yàlla te xëy na suñu borom tey li li mu dogal li mu dogal nii ci moom xëy na tey mënoon na ko teg leneen. yàlla li mu dogal nii si moom lu gën la ba man miy toog ak yow man yàggul sama papa bu génnee àdduna yàggul mais tey damay sant damay sant loolu gën ci sant gën a góorgóorlu su ma doon def benn tey damay jéem a def ñetta xool bu baax nag li may def ak li may wax mais instant bi daal wala ku ko massawul instant li am nag suñu borom moo ko dogal tey dañuy gis ne ay polémique en tant que comme ko moom mooy li nga xam ne mooy jiitu te ku ko dégg même rek nga xam ne Wally Ballago Seck fu mu toll maanaam dañoo dégg ay polémique yu bëri maanaam waali fu mu nekk ak wala lii wala laa te yow en tant que tey jeune sénégalais en tant que mara mara yooyu nga génn nga xam ne ñoo génne di wax li nga xam mooy dese bi nga xam mooy dese Kine Diouf Diaga ndax gis nañ ko si li nga xam ne mooy dese moomi tey ñu defaat ko li nga xam ne mooy dese Diaga non xam nga tey jii nii tey instant bii nii yow bëri lu bëri max yow dañ siy waxtaan mhm. toog nañ fi waxtaan si yow la dina am xew-xew bu bu am mhm. émission mu ngi fi na am xew-xew bu rëy boobu nga ne ma Cheikh looy am ma ne la na am xew bu am mm-hmm. mais tey ñun suñu borom dafa am lu ñu lu ñu may mm-hmm. mais tey adduna sax adduna mënoo gis lépp sax wax lépp loolu baaxul mm-hmm. tey jii boo doonee ndaw wala nga doon mag doon kilifa foo fekk tey luy loo xam ne day yàq da war a war da nga war a mën a wax mu wax jooju defaru parce que tey suñu borom mooy bind ñun ñii ñëpp tey xamuñu sax ndax émission bi ñuy def nii ndax dina egg parce que yàlla moom mooy xool li ko ne mu teg ci jaan kenn xamul suba ndax sa suba nii lay mel yàlla nag moo jekki saa wane leen am lu mu wax nit tey moo lay def ngay gis moo lay def ngay ñaan tey ñun tey ñun li nekk li nekk si ñun nii suñu borom moo ñu ko may suñu borom moo ko def su ñun moo def loolu su ñun ñu siy dimbali jaam yàlla di si dimbali ñëpp mais tey moom instant man tey lu may wax rek man Cheikh wala suma kàddu ma koy génn damay génn lu rafet mm-hmm. parce que man ñi may ñi may suivre ak ñu yor sumay contact mm-hmm. bëri ay borom doole leen te ñoom ñëpp ñu ngi yàkkam sax ma def émission mm. parce que ñu bëri su ma def émission par dañ may wax ne ah sëñ Cheikh daal wax nga wax ju rafet mm-hmm. wax ji nga wax dépassé woo dara te man li ma gën a neex yow yaa ngi jàppale Sénégal mu mm-hmm. la neexoon sax mas yi mën ngaa bañ a wax mm-hmm. mais defoo ko da ngay génn sa xaalis ba pare di ñaanal jour yi di génn sa xaalis di def ay sarax Sénégal buy football chaque jour barki alxuraanu karim chaque jour bi kan bi commencé ba léegi damay génn sarax chaque jour su ma yeewoo su ma jullee fajar ba pare ba naan café damay génneel équipe nationale su ma génnee man soo ma ko pare damay génneel équipe nationale sarax génneel su ma jour yi may ñaanal su équipe bi sarax chaque jour. tey avant tout tey soo am loo doon digal ki nga xam mooy Wally Seck wala ay conseils yoo ko doon par rapport ki nga xam ne ah moom la ñoom ñoom la doon wéeru ndax ki su mel ne eh, Thione Seck moom yàlla dafa def mu génn àdduna tey magam bi nga xam ne moo ko doon si yëpp muy eh, soxna moomi tamit mooy lool ba si ki nga xam mooy mooy Mama Kiné Diaga ndax wéttalam mook yaayam ay complice lañu woon tey jii tey su amoon yan kàddu nga ko doon dénk en tant que ndaw tey loo yan kàddu nga koy jox. non man moom instant bii noonu Wally man li ma koy dénk man Cheikh Mara li ma koy dénk mooy lenn laa koy dénk ñi xam ne ñoom ay magi papaam lañ wala ñi xam ne ay rakk yaayam lañ tey jii na jël ñooñu mu def leen yaay ñii mu def leen papa tey lu mu war a def wala lu muy waxtaan loo xam ne da ko bëgg a taxawal mu xëcc leen waxtaan see ñoom ñu ña defal lii mu def lii mm-hmm. adduna moom nit boo doonee ndaw moom foog nga foog boo doonee ndaw mm-hmm. boo doonee ndaw ba am kilifa rek génn te wali yàlla xam ne wala ma kilifa mm-hmm. te wali am na loo xam ne yombul quoi wali yaayam gërëm na ko papaam gërëm na ko loolu loolu rafet la kon Cheikh Mara waaw affaire bi nag dama koy ñax rek parce que yàlla moom mooy bind te yàlla mooy dogal yàlla kenn mënu ko jox moom man li ma koy ñaax moom encore jeune dama koy ñaax rek mu gën a yokk góorgóorlu xoolaat entourage am bu baax waaw man nag cheikh dama ñëw di wax wala may ñëw di jaxase wala may féewale man suma ma gi ma yàlla yàlla def suñu borom def mhm. dama siy dimbali jaam yàlla te nit ku may liggéeyal dama lay liggéey si sutura ma saama bañ a ma deew bañ a xam mhm. man noonu lay liggéey te nit moom tey la yàlla may xam-xam bi la yàlla may nga koy liggéey liggéey bu set ngaa moo si liggéey liggéey bu set suñ borom da lay jàppale si loolu mhm. moo tax démb def dama amoon match stade Pikine mhm. mooy phase régionale bi mhm. instant match bi sax dafa des match bi def quoi mhm. def mais instant yi sax match bi dañ koy footballaat final ma mos a football lépp maintenant final ab démb bi moo mos def parce que après gars yi xam naa cool yi moo taxoon tamit ñu ne match bi dañ koy footballaat moo taxoon démb sa émission bu jëm ñu ko woon def waaw ah, avant tout ah, ñoo ngi ñaan yàlla ki nga xam mooy mama Kiné Diouf Diaga yàlla yërëm ko xaar ko àjjana fii daw si ak mboolem julli ñu fa fekk yëpp yëpp noonu la koy ñaan ñëpp koo xam ne nga taw tëdd lalu hôpital yàlla may la tam bëgg a génnaat bokkaat si bi mu réew mais dañ doon tëjee juste ndax dañoo nekk li nga xam mooy ah, fii Sénégal te Sénégal képp ku am naqar dafa mel ni yow sa naqar mi nga jël def ko sa place avant tout dañuy ñëw si li nga xam ne mooy ndax day war a waxtaan kan waxtaan ci li nga xam ne mooy combat diggante Balla Gaye ak ki nga xam ne mooy Tapha avant ñu ñëw si ñaari si Tapha Gaye ak Balla Gaye dañuy ñëw ci nga xam ne mooy kan waxoon nga euh, Sénégal Cameroun nu mu doon demee tey Sénégal wala jàkkaarloo euh, Guinée comme que Sénégal qualifié na sax mais match boobu il faut mu fuul tey match bi boobu doon ana lan nga si gis Cheikh. ah man moom instant man Cheikh almaxtum li ma wax. waaw li hmm. yàlla suñu borom bu baax. sant Seydina Limamou waaw hmm. li ma si masque mooy lenn instant bi hmm. comme te Sénégal instant yi Sénégal qualifié na hmm. te toogoon nañ ma ne la Sénégal day qualifié nga ne ma Cheikh looy wax ma ne la instant yi man quart de finale laa wax toogoon nañ ma wax la ka mission bi ñu mujjee def équipe bi nag instant bii nii coupe bi instant bii nii mu ngi si loxo Sénégal mais day fekk instant bii nii ñu respecté sarax bu baax respecté sarax yi ñu respecté sarax yi bu baax yaa ngi comprendre sarax la ñuy respecté ubbi nag instant nii mu ngi si loxoy gars yi ñii di yàq ñu bàyyi yàq yi. mais Mara yooyu noonu nga wax ñu ne Sénégal du génn premier tour ah, Sénégal Cameroun da koy Mara yooyu tey soo amul loo leen di wax en tant Mara tey loo leen di wax. non ma leen di wax mooy lenn li ma leen di wax ñooy lenn tey nit lu nit am fii si yàlla moo ko may lu nit am fii nii suñu borom moo ko nañ bàyyi yàq yi ñuy def yàlla noppi na suñu borom mooy ay ay mooy programme moo yor programme nga jamono toog na ci ma ne la ki organiser équipe ki organiser Coupe d'Afrique day toog nga ne ma Cheikh lay wax ni toog nga ne ma lay wax mhm, waaw xam nga tey ñoom ñu ñu fa bëri woon mhm. instant bi ñu ñu fa bëri woon ñu si ñii dañuy waaj a qualifié ñii dañuy waaj a toog mhm. te yàlla moo yor ay mbiram te ñoom kenn xalaatu woon ne Sénégal du Sénégal day qualifié parce que kenn ñi may si woon wax yow bi nga jëlee interview nga ma jël moo waxaa yow Mm. soog match rek mooy ma la match bi li muy dem wala match bi temps bi wala match bi lii lay demee mm. mooy ñu bëri sax dañ ma ci oo téléphone ne ma seex gars yi def nii mm. dañuy jàppale équipe nationale parce que ñun ay sénégalais lañ direct Sénégal mooy daw suñu yaram comme tey war nañ mën a jàpp équipe bi ah man moom maa ngi liggéeyal joueurs yi équipe nationale am na ñu ma siy liggéeyal man damay damay liggéey damay leen di génneel ay sarax pare man di génne équipe bi sarax mm-hmm. man noonu laa mel mm-hmm. man nag li ma suñ borom may dama siy jàppale nit ñi te yàlla tax mm-hmm. di si dimbali ne doole di ñëpp man man man man looloo nekk si man waaw mais mais ñu si match Guinée Sénégal ndax day ndax instant jamono yi foo tourné nga xam mooy poule yi man sañale na tooñ jël li nga xam mooy seen match bi teg en mai ñoo Sénégal di leen dóor en tant que Mara tey loo gis tey si match boobu noonu non boobu moom match boobu moom wax ji bari na. instant mhm. yii sama ba tey téléphone ma ñëwee appel lu bari laa su fekk gars yi di ma woo di ma match bi nan lay demee ñi xam dañ mhm. dañ may wax pour ma bi. Mhm. la ni muy demee. ku ñëw ma waxee dama dama siy wax mais match boobu nag li ma lay xamal. xam nga Aliou Cissé match bi Aliou Cissé mën na Aliou Cissé match boobu noonu xam ne day leen noppal. Mm. du leen du leen dugal. Mm. am na si ñoo xam ne ñu jéewul da leen dugal ñu jéey. Mm-hmm. waaw parce que instant équipe bi du qualifié ba pare. Mm-hmm. gagné ba pare tey génne muy muy muy tegaat bi ñoom ñu ne fii di gaañ. Mm-hmm. Aliou Cissé du def loolu. Sénégal Guinée moom man bi ma doonee xale moom doon boy yàgg naa ne dër bi quoi. <laughs> waaw Sénégal Guinée moom yàgg naa doon yàgg naa ne dër bi quoi li ma doon boy doon wax gars nii ay jamono bi may doon wax gaay gaay di gis di gis teg bët mm. ba moo lay xëy ne Sénégal jëlagul mm. ay jamono temps yii maa ngi doon booy mm. neen Sénégal at mi ci lay commencé jël boobu maa doon xale mais dër loolu ba instant sa ñoom ñu ngi yor seen làmmañ di wax wax ju bari wax ji daal bari na daal mais mais match bi lañ bëggoon xam ñaar ñaar nan lay demee rek non Sénégal Guinée bi non moom Sénégal moom si kàttan suñu borom moom Sénégal moom jamono ji li ma la mën a wax rek. Mhm. Sénégal moom dina si génn moom Sénégal moom dina si génn. Mhm. waaw gëm comme su ma maanaam Sénégal day dóor Guinée. non Sénégal match bi dina si génn man Cheikh man gëm naa loolu dina génn si match bi si kàttan suñu borom man xam gis naa dina si génn quoi. Mhm. dina si génn. te équipe bi moom équipe bi waaw dañ ka samp quoi. man li ma lay wax équipe bi dañ ko samp. avant tout léegi noo gisee li nga xam mooy kan euh, bi ak équipe yi ñu joxoon li nga xam mooy favori équipe yëpp bu su mel dafa nërmeelu maanaam ñu ñu tegoon favori ñëpp kenn amu si qualifié bu bu leer bu Sénégal ak ki nga xam mooy Cap-Vert. waaw ah, dañ gars yi ñëw tey favori équipe suñu borom mooy programme suñu borom mooy programme ay mbiram am ñoo xam ne si am na ñoo xam da leen koy si gént am na ñoo xam dañuy judd yàlla def ko si ñoom te tey ñun tey man tey ñun li ñu yàlla may lépp. waaw ñu ngi koy def ñu ngi koy dimbali ci jàmm yàlla si sutura mais tey yàlla am na lu ñu jox secret yu bari yu ñu jox xam nga tey rek tey on a téléphone ne la soo ñëwee mën naa def benn secret rek jël laa fa mu taal hmm. ne ma non après bi nga waxee loolu sax ma ne la ma ne la loolu loolu ci raaw loolu man mi yow mën naa defal secret boobu heure boobu pare ma defal la yow journaliste bi hmm. man du ma def sa secret bi man maay jël laa fa am lu am am secret bu ma def taalal la loolu mais loolu boo bëggee mën na doon sa émission bi ñëw. mais est ndox que doon tey. non tey jii mënul mënul la tey. lu tax da kon dama koy lancé gars yi. gars yi ñu pare xaar loolu kon bi ma ne la man dinaa jël baraada bi teg ka teg war ngaa suukar waxaat jinne yi bu baax ma xel ñu naan ma la waxee dinaa jël kaas yi lekk ka hmm. ba luxus ko. Hmm. li ma def loon loolu émission bi ñëw si kàttan suñu borom man dinaa jël laafam yow solal la ko man dama ko sol man Cheikh Mara borom kiraama hmm. man maa lay solal laaf ma pare waxaat jinne nekk taalal leen ma laafam yi parce que maa dëgg ay nit di wax yu bëri ñii naan seex weerante la ñii naan seex manu ko ñii naan seex man na lool. ñii seex bu defee loolu ma bàyyi loolu yaakaar naa xaar dégg de. waaw ñu seex tey jii manul loolu ñii ne seex man na ko mais si kàttan suñu borom émission bii ñëw bi ñuy def man may jël suma ma laafa sax couleur bi laa lay solal wax a jinne yi ñu taal laafa bi te yow sa boppam tàkk. Hmm. man may seex borom kiraama yi borom laxdari borom tabdil man la man njëriñ nag mooy sama maam. Hmm. Hmm. dégg ngeen ah, lu mu wax tëj te waxuñu li nga xam mooy làmb. mais booy bi hmm. booy booy numéro Sénégal bi. kan ci booy vingt cinq bi sama booy. waaw Lamine Lamine Lamine Camara. waaw na xaw a def na xaw a def attention na xaw a def attention bu baax si kan bi quoi. Hmm. waaw na na na dal quoi na dal su bëggee gérer lépp na dal lépp am na lu nawoon ci moom lu bari te am na ñoo xam ne instant ñu ngi si ay suuf di ko yàq parce que booy bi li mu doon jeune instant yi fël am na ñoo xam ne neexu leen moo waral ñu koy jéem a yàq di ko def ay galgal na dal quoi. ah hmm, na dal bu baax moo tax bi baax sax mooy loolu na dal bu baax. Hmm. na dal am na lu ma gis si moom lu bari hmm. mais na dal rek te ñoom seen famille ñu koy fexe di génnal lu weex. laax wala soo wala dal ñu koy génnal quoi. tam te te Lamine Camara moom day am lu nekk si football mais na dal na na ko def dal rek si kàttan suñu borom. fii Sadio Mané àgg barki alxuraan dina fa àgg. man maa la wax incha allah moom lañ koy ñaanale bépp joueur yi nga xam ne ñoo nekk équipe nationale di ko ki nga xam ne mooy Lamine mais dañuy jógee li nga xam mooy si euh, Coupe d'Afrique ñëw mooy làmb ji ndax làmb ji da nga réer mais dañoo gis Balla Gaye ak Tapha Tine Tapha Tine jëlaat gis nga keroog seen jàkkaarloo bi ak nan nga gisee naa ñaari combat yi ak nan nga gisee ni nga xam ne mooy état de physique ñaari mbëri ak nan nga gisee ni nga xam ne mooy euh, wàllum gàllaajee mystique non lamba lamba jooju moom instant bi moom lamba ji waaw taxaw na mhm. ci Balla Gaye ak Tapha Tine mhm. Balla daal instant man li ma koy wax mooy lenn Balla jamono jii nii jamono ji mhm. ko waxul Balla demal defar wax ko dara hmm? maa la lu garaaw Balla instant bii nii nii nii ku ko waxul Balla demal nga defaru waxoo ko dara Balla instant yi parewul mais su ma déggee sa wax ak waxi ak wax yi ko gars yi wax di ko tuddee li nga xam mooy Fawzeni jàkkaarloo caméra bi ñu ne ko Fawzeni est ce loolu noonu tamit moom moo firndeel nii. non Balla taxawul barki sëy naa ne Balla Sane taxawul Balla Sane des na Balla Sane foog mu defar yaramam Tapha Tine moom li ma la waxoon émission bi njëkk a def. Hmm. ma ne la Tapha ji waa bool dañ ko samp ba combat mu Eumeu Sène nee naa la Eumeu Sène day daanu mënul daan Tapha Tine. wax naa la mais mais Balla Gaye ñoom ñoom moog bi mooy trois fois bi waaye trois fois ñoom ñaar ñuy daje noonu trois fois de. dañu njëkk a bëri mbapat. bëri mbapat. Balla daan ko. Balla daan ko mu ñëwaat. Balla daanaat ko Balla daanaat ko. waaye keroog Balla Gaye moo ngi koy wax. mu nga koy wax te gis nañ gis nañ ñoom ñaar euh, li nga xam ne mooy Balla Gaye dafa njëkkoon toog benn siège boo xam ne fa la taxaatin toogoon. gars yi na ko ne mu jug demaat mu ne soo bëggee sax mën ngeen ma jox gàllaaj yi may sangu est-ce que taxaw ci wàllu gàllaaj wala Balla. non Balla instant bii nii Balla instant taxaw na mais dina génn dëkk bi balaa hmm. combat fan yi Balla dina def benn voyage. Hmm. dina génn dem defaru ñëw. Hmm. mais Balla instant yii taxawul si gàllaaj. man sa waay man du maa luy dañ de. barki laa illaaha illallaah instant taxawul si gàllaaj. mais Tapha Tine moom li ma a gën a mën a xamal mooy leneen Tapha Tine jamono ji nii. instant waa bool dañ ko samp. yow ñëpp émission bi njëkk a def. expliqué naa la ma ne Tapha Tine. Eumeu Sène du daan Tapha Tine Tapha Tine dañ ko samp wax naa la bi njëkk a def. dañ ko te yaa ngay gis mu mu ceel ceel ceel nii ceel rek. mais sama loolu wax ci ñoom ñaar seen état de kii euh, li nga xam mooy xar foofu ba tey loolu ndox cent pour cent la wala cinquante pour cent. bii nii ñoom ñaar seen état de gàllaaj instant yi Tapha Tine moo gën a taxaw Balla Gaye si gàllaaj. Hmm. Cheikh Al Maktoum ma àndoon. soo waaye man du wax luy dañ man waxuma li ma àndal mooy wax xëy na nag làmb ji mën na dem ba si kanam Balla Gaye dem defar ñëw. Hmm. loolu mën na Balla mën na dem defaru ñëw mais jamono ji daal Balla ku ko mën a wax demal nga defaru ji waxu ko dara. ku ko mën a wax instant loolu nga koy wax. Ah. mais nag moom instant yi làmb mu ngi koy yitteel parce que instant mu ngi bëgg a làmb. Mm-hmm. instant yi moom bëgg na làmb bu sañoon day daan sa waay wàcceel ko def lépp quoi mm-hmm. mais instant bi moom man li ma ko mën a mën a conseil mooy lenn. Mm-hmm. làmba ji nii na si na ut gàlla taxaw si si rek bu bëree làmba ba pare après dina am dina dina am lu metti lu ko lu ko daan man maa la wax lii. bu defarul boppam nii balaa muy bëri làmba ji après dina am loo xam ne lu garaaw lay doon. tey soo waroon wax li nga xam mooy eh, sarax yu bala Gaye war a génnee tey yan sarax nga koy digal. non Balla Gaye instant bii nii moom sarax bi mu war a génne lenn day génne ñetti melo. ñetti melo ñetti lay génn. en mhm. benn bëy. Balla moo lay seetaan nga jàkkaarloo mu wax. Balla day génne ñetti melo en benn bëy mhm. ñetti melo. Mhm. bu ko saraxee ba pare. day bu ko saraxee ba pare day wër day wër day wër six six îles lay wër. six bu si ne mu sangu si. waaw moom li may wax nii moom xam code boobu. Mm. parce que moom yàgg na génn. Mm. yàgg na génn. Mm. mais instant bii la wax nii moom Balla dina dina voyager après bi. te instant sax lu dégg nga li nga xam moom la wax ah, li nga xam moom la wax si Balla Gaye numéro ndax li ñu joxoon si waxtu oh, dafa xam dafa mel ni dafa xaw a jeex. Ah. mais di la bàyyi ah laa mën a dugal nga ne ma 10 dugal. waaw waaw waxoon nga ma keroog. waaw nee na Cameroun. Cameroun daara mënu kaa tere dugal. Mhm. bii bu duggee gars dañ moo téléphone may leen Cameroun te la ma première bii bi di am. du mhm. première bii bi ñaata minutes la dugg ay côté lan ay. ay quinze quinze dix-sept mhm. moo tax ma ne la football xaw ma la la mais man football suñu borom dafa si may. may liggéey football équipe meilleur a jël ko. bu démb la mooy final bi ñu arrangé noonu la ma méttee. démb reeruma sax. parce que man xaw ma defet man ndam laa xam jël coupe laa xam. parce que dama yor lu wóor may hmm. xale bu ndaw yor lu wóor di liggéey si lu set ba pare sell man du ma caaxaan hmm. damay liggéey hmm. si man li ma ne laa ne heure boo fekkee yaa fekk mooy sama puus ji di wer am na lu bëri loo xam ne sax du ma ko def kon ñenn maaraay ñu def génn si biti di wax di classe di wax ay diw moo li diw moo parce que man ñi ma encourage sax ñi ne sama ginnaaw kilifa yi sama ginnaaw duñ ma bàyyi sax may fekkal lu may fekkal may fekkal lu yàqu ma war ko defal di ko yàq non ñun Seydina Limaam moo ne suñu ginnaaw suñu borom ne suñu ginnaaw Seydina Limaam doole ñu. Mhm. te sanga bi dafa wax ne ah ñun de ay taalibeem. Mhm. war nañ mën a defar lu baax. Mhm. wala ñu fekk foo xam ne doomu aadama dafay yàq. ñu jëm fa wax lu rafet. ñu fekkee sëy wala dara mu yàqu. ñu jëm ko defaraat. parce que ñun sanga bi si loolu la ñuy yéex. tey bu ñu mënee fekk wax ju yàq. ñu def ko mu defar moo gën ñun ay ndaw lañ. kon Cheikh Almakhtoum vingt huit ans am. nee naa su ma amee quarante la ñuy wax. dama am vingt di wax gaa gis. naa pour ñu var ma du gaaw balaa ñu may var mooy ma dugg a bàmmeel ma dugg a bàmmeel ñu sosal man seex moo wax lii moo def lii chaque jour te loolu noonu la jaaxale. Mm-hmm. biñ commencé def émission maayo ba léegi mm-hmm. masumaa fen mm-hmm. si kàttan suñu borom te lu ma mas a fen parce que man li may wax man dañ may wan man li ma àndal damay wan lu war a am damay wan ma ñëw wax am na ci bëri loo xam ne sax dama lay dara day war a am sax may la sax am na lu war a nga ne ma est que doo ko téye nga laax ka rek ba mu am. Mm. nga doog ka mm. du lépp ngay wax. Mm. du lépp ngay wax xam nga toogoon nañ ma ne la sa ay Sonko yi ngay ngi nii Sonko gisuma gisuma mu toog élection. waaw si élection yi laa bëgg ñu ñëw. Ah. gisuma gisuma Sonko mu toog. si élection yi laa bëgg ñu mooy dëgg naan ay Basi Jamaay xaw ma daal xaw ma. yow tey waaw ak ñi nga xam mooy Déthié Fall ak la te Karim Wade nga xam mooy bokk tey tey cinq président sa mënoon wax tey ay nekk yi nga xam mooy en direct Dakar Midi. cinq président yaakaar nga ba ba si Diomaye Faye dina toog. man moom li ma la mën a mooy lenn. waa kër Sonko moom ñoom ñooy doon président. Hmm. waa kër Sonko ñoo koy doon. baa yaa ngi xalaat déggoo li ma la waa ko sonk ñooy doon président. man hmm. Cheikh Al Maktoum du ma luy dañ. waa ko sonk hmm. ñoom ñooy doon président. xam nga def nañ émission may la Sonko. Sonko moom du bokk. mais ñu mu àndal dañ bokk. ñu mu jiital ñoom dinañ bokk. Diomaye. waaw dinañ bokk man wax naa loolu explique toog nañ ma expliqué loolu kon te nag mhm. yi li ñu mën a xam mooy équipe bi dañ mhm. ko jàppale mhm. def ñaan ku si ne tey boo mënee jàppale Sénégal nga jàppale Sénégal ñun ay Sénégalais lañ gars yi daal instant loolu la war a mën a def waa ñu bàyyi wax ñi daal bàyyi yàqa yi dalal gaa yi seen xel boo gën fii lu am yàlla la suñ borom mooy am lu mu def def ko si jàmbi jàmbi di gis loolu di wax mais tey yàlla bu amee lu mu la def tey da nga war a mën a rafetal waroo fekk tey loo xam ne day day yàqu nga koy yàq. Mm. affaire bi daal équipe bi daal gars yi dañ gën a ñax mm. gën a respecté mm. te suba si kattan suñ borom kër gu si ne suba na nga ñetti galaas. nga teg ko si buntu kër gi suba. incha allah rabbi waaw. waaw waaw loolu loolu loolu bu baax la si équipe bi. Mm-hmm. dëkk dina gën a sedd. Mm-hmm. su si kattan suñu borom. Mm-hmm. gars yi nañ sedd. waaw ah, di am mbégte ak contentement bu baax a baax di dalal ki nga xam mooy Cheikh Jantal Mara di leen di leen joxaat digg daje ba beneen yoon ndax saay su ne saay su ne suñu toogee moom dañuy am mbégte bu baax a baax a baax a baax ak képp koo xam ne yaa ngi suivre li nga xam ne Dakar mi maa ngi oo kële Ablaye Diouf Sarr loolu ñu wax Ablaye Diouf Sarr mm-hmm. waaw sama gars yi xarit yi mm-hmm. oo waaw waaw oo Momo Dieng Momo Dieng mm-hmm. bu baax ñoom ay borom baax lañ quoi waaw Massa Wali Seck wala ma gis ne bugguma tudd kooku yaa kooku da ngeen am problème non kooku kan kooku tudduma turam ki nga tudduma turam ba léegi de. Hmm. tudduma turam moom moo jëlee la tudd ak Tarba Mbaye waaw tudd Waly hmm. Seck waaw di Massa Waly Seck ah di ku la xam ku la xam dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. yaa kooku la la xam di woo Zal la xam. ki xam Cheikh borom jantal maara kooku moo tax ñu xam la. kooku yaa moom lu seen problème. non man bu ma xësee ba taal dama lay bàyyi hmm. bu xësee ba taal ni dama lay bàyyi du ma ñëw sa toppaatoo gars yi ñu ngi ne fi ñëw seen làmmañ mais dama gis moom dafa waroon voyage li nga xam ne mooy mooy mooy daa am fa am fa contrat si wax yu si wax yu ma dégg ñu ne yow Cheikh yow yaa annulé la li xam mooy contrat man toog naa wax ne voyage yi dina ne ne du voyage def naa émission wax kon dégg nga lool ma ne voyage duñ voyage duñ dem barki sëy naa limaam émission fa ko defoon siwal ko hmm. may na ñoom duñ voyage wax nañ ñoo nit ñi duñ dem ne duñ dem parce que foog xooli mbooloo ñu man a dem mm-hmm. parce que voyage bi ay yàq da si am kii day dem kii kii ne du dem kii day dem mooy la voyage bu taxaw sa waaye man lu ma la lu ma mas a wax da nga siy man du ma waxante mm-hmm. parce que man li ma àndal mooy wax mm-hmm. barki yàlla mais global business borom iPhone yi jàll Zal fils l'international borom hmm. global business borom iPhone yi. Hmm. waaw maa ngi koy bu baax. war na laa jox benn iPhone. non Zal da lay jox benn iPhone. Hmm. Zal Zal Zal da lay jox benn iPhone loolu du lu ñuy waxat sax. waaw di am mbégte bu baax a baax di dalal sant tamit Baye Assane suma grand bi borom kër gi. borom kër gi waaw Baye Assane nee naa nit ku baax la Baye Assane. waaw naa ko Yoff. waaw ah, ab ndax appel baa ngi leen ñëw si kër gi lañuy ñuy dal si. non Baye Assane kooku kooku muy social sa waay. Ah. loolu loolu du ñu loo xam ne lañ koy wax sax. Mhm. kooku day dimbali néew doole te day dem day dimbali gaa yi sutura. te mhm. du ko wax. Mhm. kooku kooku ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla yokk xéwalam. yàlla bàyyi ko fi. waaw xol bu rafet la quoi. waaw ah, Baye Assane ñoo ngi lay ñaanal gudd fan ñaanal ko wér ak képp koo xam ne li nga xam ne yaa ngi si biir kër gi rek di ko di jël nuyoo di ko teg sa ah di leen nuyu bu baax a baax di nuyu sama cadre di leen jox dig day ba fan yii di ñëw allah rabbi ak Cheikh Kantal Mara jaa jëf.